allama alinsaana ma lam yaclam wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin sayidi alcarabi walcajam wa ala alihi wa asxaabihi allazina qiila fi xaqihim asxaabi kannujuumi bi ayihi muqtadaytum ihtadaytum wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi ñuy topp ci suñu jotaayu koor ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel ci fan yu tedd yi ñu nekk di ñaan yàlla subhanahu wa taala bépp xaraka xayriya bu ñu ci def yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla gërëm te faye ñu ko ca na mu toll moom bi jaahi nabii sallallahu alayhi wa sallam tey nag li ñu bëggoon waxtaane ak yéen mooy chukrul hidaaya mooy sant gi nga xam ni jàm bi war na ko sant yàlla jàm bi war na sant yàlla ci mbooleem xéwal yu ko yàlla defal waaye rawatina nag xéwalu teg ko ci siraatal mustaqim mooy xéwal bi nga xam ni mooy xéwal bi gëna a ci xéwal yi mooy xéwal bi gëna a rëy ci xéwal yi ndax kat yàlla bind na sa moroom ni yow xéwal googu la defal xañ na ko ko moom jox la ko yow kon nag jox gi mu la ko jox loolu war nga ko ci sant war nga ko ci delloo njukkal borom bi subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ci suuratu fussilat wa amma thamuudu fa hadaynaahum fastahabbu alama ala alhuda fa axazathum saaciqatu alazaabi alhuuni bima kaanu yaksibuun yàlla nee na nitu samuud alayhi salaatu wassalaam yàlla nee na moom kat da leen a jubal teg leen ci yoon woo xam ni yoonu mbaax la yoonu yiw la yoonu teraanga la yoonu lépp lu yàlla gërëm la waaye ñoom ñu ne ko fi njukk dal ne ko kat ñun daray mbaax ñoruñu daray mbaax safuñu yàlla nag daldi di jëflanteeg ñoom sa saasa kon dangay gis ne yàlla digal jàmm mu def wala yàlla sant jàmm mu ñàkka def ba pare des fii di dundu yàlla di continuer di ko xéewalal loolu xeet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek la ko yàlla jégleel kon niti samud yi bi leen yàlla waxee li mu leen wax ñoom ñu wuteek ndigalu borom bi subhanahu wa taala def la ñu bëgg a def yàlla nee na ca saasa rek la yebal ndawam lu ñuy wax jibril alayhi salaam mu ñëw daldi di leen di yuuxu ba mu leen yuuxoo benn yoon rekk ñetti fan lañ ca teg ñoom ñépp dal di faatu kon xeetu sayduna muhammad alayhi salaatu wassalaam ñoom rekk la yàlla may sant leen ñu bañ a def te yàlla du jëf jëflanteeg ñoom fii ci àdduna waaye nag loolu li leen ko may mooy garanti boo xam ne dañ ko amee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ëllëg yowmal qiyaam ndax yàlla du jëflanteeg ñoom kem ni mu jëflanteeg nitu yenent yàlla samud yooyu wallahu aalam yàlla nee na daal fa axadathum saaiqatu alazabi lhuuni bi ma kaanu yaksibuun ci sababu tànnaloo gi leen yàlla tànnal yoonu njub ñu bàyyi ko fa topp yoonu safaan kon mbokk yi nañu bàyyi xel ne hidaaya njub mooy xéewal bi gën a màgg ci xéewal yi nga xam ne yàlla mi ngi koy xéewale jàmm bi loolu moo tax saa yuy ne ñuy sax ci di ko ñaan ci julli farata bu nekk jullite farata bu nekk ñu ngi wax ihdina sirat al mustaqim kon li nga xamee ne hidaaya xéewal la boo xam ni jàm bi bu ko bëggoon sax sant mënu ko sant ndax xam gi mu xam ne xéewal la bu ko yàlla defal loolu rekk beneen xéewal la boo xam ne da ko war a sant kon su bëggoon a sant xéewal googu dina yàgg lool waaye du ko mën a matal yàlla nag nee na yoon wii di yoonu siraatal mustaqim ku mu neex nga tege ci ku mu neex nga sóobu ci waaye du ngeen ci mën a tege mukk du ngeen mën a sóobu ci yoonu njub mukk lu dul boog dafa neex yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi yàlla wax na ko ci jeexalu suratu takwir liman shaa minkum an yastaqim wa ma tashaa'una illa an yashaa allahu rabbul alamin yàlla nee na liman shaa ku mu neex minkum ci yéen an yastaqima mu fexe ba tege ci njub tege ci siratal mustaqim tege ci voie boo xam ne su ko wàccul mook moom ba aljanna yàlla nag teg ci ne wa ma tashauna loolu nag du mën a am mukk illa an yasha allahu lu dul boo da ko neex moom yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne rabbul alamin mooy boroom mbindeef yi mooy borom lépp di boroom ñépp dafa am nag ay nit yoo xam ni dañuy doon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ñun kat bi la nit ñi weddee xeex ak yow ñun boobu dañu la gëm ci saasi te jotuñu sax xeex ak yow dang ñu waar wax ñu alquran wax ñu kéemaanu sa boroom ñu gëm la ci saasi te jotuñu yëkkati suñu jaasi jëme ko sa kaw commencé nag di tudd ay ngëneel yu baree baree bari waaye yàlla subhanahu wa taala dangay gis ne rekk jaam yooyu def loolu ba tax ñu bëgg a ndamu ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm gi ñu gëm yàlla coobare yàlla la waaye ngëm gi ñu gëm yàlla ñoom ñoo ci ëpp ñoom ñoo ci ëppale ñoom ñoo ciy jariñu waaye dolliwul yonent bi dara waaye tamit wàññiwu ko dara moo tax borom bi subhanahu wa taala ni yamunnuuna alayka an aslamu qul laa tamunnu alayya islaamakum balillahu yamunnu alaykum an hadaakum lil in kuntum sadiqin waay waay sa mbokk yi kat ñi ngi ndamu sa kaw ci dugg gu ñu dugg ci lislaam te jotoo jëflanteeg ñoom ci jaasi waaye sa kàddu rekk nga leen waare ñu dugg ci diine lislaam loolu ñi ko bëgg a def ndam waaye loolu du ndam ndax dugg gi ñu dugg ci lislaam ñoom ñoo ci jariñu waaye yow yokku la dara waaye wàññiwu la dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lum daan wax saxaaba yi ne leen ndax fekkuma leen woon ngeen nekk ay nit ñoo xam ne nit ñu sànku lañ nit ñoo xam ne daraay mbaax xeñtuwuñu ko daraay mbaax sóobuwuñu ko ndax nit feek mi ngi nekk ci shirk rekk lu baax lu mu mën a def du am asaas du am fondement moo tax du taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da leen wax naan alam ajidukum dullalan fa hadaakumu llahu bi waaye waaye ndax fekkuma leen woon yéen ngeen nekk ay nit yoo xam ne nit ñu sànku ngeen yàlla ginde leen ci sababu nekk gi ma nekk ci seen biir su leen waxaan loolu nag ñoom lañu daan tontu mooy allahu wa rasuluhu aman bépp xewal boo xam ne daal am nañu ko yàlla moo ñu ko defal ci sababu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom dañu daan bàyyi ndamu gi ñu daan ndamu hidaaye boobu yàlla defal leen waaye di wax ne kat yàlla ak yonent bi sallallahu su ndamu jaadu woon ñoom ñoo war a ndamu ci seen kaw haza wa billahi tawfiq in uridu illa al ma stataat wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa taala wa barakatuh